جملة الوباء وسقطنا الأحداء كل داء ودمرا كل أحداء تدير بنا خطر رسولنا يا loo ragal yàlla boo ko gis loo yóotu yàlla na nga am loo dund doyul loo am doyul dëgg su door rek dëgg su door yàlla na yàlla guddal sa fan dëgg su door yàlla na nga gudd fan man loolu laa bëgg yàlla na nga wér jaay Seydina Muhammad wàllu dundal xam nga lu tax ma lay ñaanal Wally da bëgg Serigne Touba Serigne man Baye Mor ñoo bokk ndey ak Baye da nga koo siggal yàlla na yàlla defal jàmm courant du moroomu batterie yi golo golo la fil balaagu jumlatan bu baax wa suxuran ahdabi kulla daari wa dammiran kulla wa loo ragal yàlla boo ko gis loo yóotu yàlla na ko am loo dund doyul loo am doyul dëgg su door rek dëgg su door yàlla na yàlla guddal sa fan dëgg su door yàlla na nga gudd fan man a bëgg yàlla na nga wér jaay Seydina Muhammad waale dundal xam nga lu tax ma lay ñaanal waale da nga bëgg Serigne Touba oh, Serigne Touba man Baye Mor ñoo bokk ndey ak Baye da nga koo siggal yàlla na yàlla defal jàmm courant du moroomu batterie nag pour yeneen booy woykat yi golo golo تدركنا خطوة سنة يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مخلوقات ونجنا من بلا يا دهر يا الله waaye loo ragal yàlla boo ko gis loo yóotu yàlla na nga ko am loo dund doyul loo am doyul dëgg su door rek dëgg su door yàlla sa fan dëgg na nga gudd fan man loolu laa bëgg yàlla na nga wér jaay Seydina Muhammad wàllu dundal xam nga lu tax ma lay ñaanal Wally danga bëgg Serigne Touba oh, Serigne Touba la man Baye Mor ñoo bokk ndey ak Baye da nga koo siggal yàlla na yàlla defal jàmm courant du moroomu batterie nag pour yeneen booy woykat yi golo golo